ñu yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax jëgn ci kenn mag secret baa sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek euh, xasida googu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 wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din wa radiyallahu ani seyxil xadim qaadallahu maxtaara lahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi nun ñëw nag firil xasi fayil leen xasida goo xam ne xasida gu ëpp njëriñ la ndax njëriñ yépp mi ngi ci biir gi ci koo xamee ne wëttu na ko te di ko jàng sun borom dana ko musal babu bu ëllëg yowmal xayaamee du gis safara ëllëg yowmal xayaam wa sun borom dana ko musal ci gàcceg aduna musal ko ci gàcceg ëllëg yowmal xayaam waaye lépp luy safara aduna sun borom dana ko ko musal ba dal ci jëmmam mu yenn tawat yeeg yenn naqar yeeg yi caaju yépp sun borom itam dana ko ci musal lépp waaye di xasida goo xam ne sëriñ bee waxal boppam ne euh, làq na njëriñu at yi ak weer yi maanaam ku koy jàng ku ne te wuttu ko mel na ni njëriñ yi nekk ci at yi ak weer yëpp yow làq nga ko mooy am nga ko loolu kon ba tey wax na ko ci biir xasida gi xasida goo xam ne ku ko mokkal ku ne da nga texe texe ba faw danga nga bokk ca ñuy dugg aljana ëllëg yowmal xiyaam muy xasida gi di laallakum tuflihoona ndax lañ ko tënkee rek moo tax te sëriñ bee ko waxal boppam ku koy jàng ku ne suñ borom du tas sa yaakaar da nga texe da nga bokk ci ñi nga xam ne mooy ñu texe ca biir aljana ya kon kenn ku nekk war na ko fexe di ko durus fexe ba wutu ko incha allahu lépp rek di ci jublu di sant borom taalif ko ci ama bi nihmat rabbika fa hadis su ko defee kon bis yeeg semaine yeeg weer yeeg at yëpp seeni njëriñ saa booy jàng xasidi gi mel nga ni seeni njëriñ yëpp ñu ngi ñëw ci yow waaye seen lor yëpp suñu borom mu ngi la ciy musal ba ilaa yóbbil baax kon xasida gu am solo la mu ne bismillahi sos nama sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur kon bépp mbindeef ci àdduna arahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam muhammad wa ala ali ak ñoñña wa saxbi ak saxaabaam ya wasalama tamu dolli ko wóolu tasliman ak dolli kama xaqaqa comme ni ki mu dëggalee raja yi sama yaakaar bi xawlihi ci saw bu waxam ji mu wax ne la'allakum amaana yéen jullit ñi tuflihoon ngeen texe mu ne maa ngi tàmbali ci tur yalla yàlla muy xew laa kon ñëpp ci àddina tey ajjëram ko soob ci àlaxira maa ngi dagaan ci sama borom mu julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa turam mooy Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam ya te dolli ko wul fu mën a nekk moom yàlla comme ni nga xamee ne noonu la dëggale sama yaakaar ne dama war a bokk ci war a texe ci waxtu maa ngi koy ñaanee noonu muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram ak saxaabaam ci waxtu wu ne te du dolli ak kóllite ak jàmm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag xasida gi da koo tënkee la'allakum tuflihoona ndax suñu bonam wax na ko ay yoon ci alquran moo xam ca xare moo xam ci xeeti jaamu yàlla yim digle yëpp da ngay dégg mu ne la'allakum tuflihoona amaana ngeen texe yaa ayyuhal lazina amanu izaa laqiitum fi atan fasbuto waskuro laha kasiran la allakum tuflihona tuflihona moom ci arab rek mu ngi bàyyi ko ci falaxa rek muy fala mbégte rek lay tekki maanaam ku xare geñ wala kuy wut bëgg-bëgg aduna am ko wala kuy wut nangam am ko lépp lu nit di wut rek bu ko amee rek falax la mooy kiilu na ca mooy am na ca nam ko bëggee kooku mooy fala waaye nag mooy texe dëgg-dëgg buñ ko waxee nag mooy dugg aljana nit ki mën naa wut dara am ko ñi ne diw texe na nit ki lu bëgg am ko ñu ne nit ki texe na yu mel noonu yëpp nit ki lu mu bëgg ñàkk ko suñu borom xañ ko kon diw dee ku texee ji la ku nangam la ko ay gaaf la ku nangam la dégg nga de waaye nag buñ ne texe moom dëgg-dëgg mooy dugg aljana de moo tax kon xasida gi képp ku ko mokkal da nga bokk ci ñi nga xamee ne dañuy texe ci aduna mooy luñ bëgg lu ne rek ci biit weer yi wala bis yi wala semaine yi wala at yi suñu borom dana leen ko defal de waaye bu yomal xiyaamee danañu texe bokk ci ña nga xam ne dañuy dugg biit aljana de ndax sëñ bi waxal boppam mu ne xat wafaltu jooyal naa lillaay jëmee jëmee ca yàlla amri samay mbir moomi nan mbir moom may aji gëm yàlla wa musliman tey aji woyee ay santaaneem wa muhsinan tey aji rafetal def te yàlla tax wa mutmina tey aji dapputoo sax ca de kon xasida gi dafa njëkk wéetal boromam ne maa ngi wéetal sama borom maa ngi jooyal sama mbir yëpp jëmee ko ci sama borom subhanahu wa taala waaye ànd koog ba may jooyal sama lépp maa ngi am imaan gu dëgër gëm yàlla wóolu yàlla mi ngi sama xol waaye ànd koog samay cër yëpp mi ngi wéyee santaane saa borom yi ànd koog ci baatin yëpp lépp lu may def ci samay cër ak gëm yàlla gu nekk sama xol ak lu ko wund yëpp maa ngi rafet rek def te yàlla tax te heure bu ne dama ciy sax du ma jooyal sama mbiri tey suba ma bàyyi duma gëm yàlla tey suba ma génnaat ci mel ni ku murtat du ma def santaane yàlla yi démb tey ma bàyyi ko du ma rafetal démb tey ma bàyyi ko heure bu ne rek gëm yàlla gi day nekk ci man iman gi ak islam gi ak insaan gi waaye dama ci sax ba faw ànd ko sama mbir yëpp duma ko jooyal kenn ko yàlla sàkk lu yàlla sàkk du ko jooyal sama mbir sama mbir yëpp ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala laa ko jooyal de moo tax mu ne xar wafaltu jooyal lillahi jëmee ci yàlla amri samay mbir moom i naa mbir moom mooy aji gëm wa musliman tey aji way santaani yàlla yi wa muhsinan aji rafetal def te tax de wa mutmina man na xéewee na ci man bi baqaa in ak sax wa saxa akuk wér waxaada woo matal na lii jëmee ci man kitaabu téerem ba maa siha ànd kook xadis ya daway wér de nee na sun borom may na ma man xéewal ak mannu mooy xéewal goo xamee ne damay sax ci àdduna ba noppi ànd kook pelek muy wér yaram saxaxta lii rabal bariyatil badan googu ma waxoon ne sun borom sama yaram do ko wéral kàkk ba du tawan mukk du nan doom dégg nga de ay comprimés du ko jël mukk di ko naan nee na suñu borom xéewalee na ma man doon koo xam ne dama fii sax waaye nag ànd ko wér kàkk du ma tawan mukk waaye yàlla jël na alquran teg ko sama loxo ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne mooy siha kooku ndax nee na hadis yëpp maal ahadis siha yi saaburo nee na mbooram fànn alquran yi ak hadis yi maac raw ndax yàlla man la ko jox hadis yëpp bu leen lakkoon wala ñu leen man sëñ tubaab mën naa bindaat hadis yëpp te du ma ci juum ci benn alquran kasaalika nag noonu la demee ak man de kon waxaada wo mat na lii jëmi ci man kitaabuhu téeram ba maasiha ànd ko xadis ya daway wér de sasa dàq na alkadar lépp luy xëyti nax-nax li wàcc yi ngir jëmam ji alkarimi ji aji tedd ilaa si waaye mu jëm ci kurun man wasafaata selala na lii ñeel ma alxadar mboolem xëyti dogal yi muy dogal de nee ne fii cëdu na gannaaw ba fi yàlla maye ma fi sax ànd ko wér mu jox ma alquran ak hadis yu wér ya nee ne lépp luy xëyti coono yi aduna jafe-jafe aduna luy gàllankoor ni ko yi nee na yàlla dàq na ko sëril na ma ko waaye da koo def ngir jëmmam ji tedd ji rek ba ma ko dàqalee mu dem ci feneen fu bokkut ak man xaw ma gan jamono mooy nëx waaye du man xaw ma kan mooy nëx waaye du man suñu borom musal na ma ca de waaye lal na ma dogalam yi de mboolem dogal bu may dogalat ci man ak dogal bu neex lay don de lam yan fu nii du ma jublu durun lenn luy xeetu lor wala adanaasu du caagi ne ay tër-tër de wala si yan hoo ta du di jublu mukk jiyaati sama wàll alxanaasu iblis ma nga xam ne lenn luy xeetu lor muy durun wala adnaas durun mën naa doon loo xamee ne xeeti bekkoor la wala xeeti feebar yu métti yi wala ñi jël ay ngàndaay di la ko dóor loolu yëpp day day tekki duru duru liñ ëpp ci alxuraan sax bu ñëwee day tekki lu mel ni ñàkk wala bekkoor yooyu yëpp eh, wakasaf na ma bihi min durin gis nga durin googu bekkoor lay tekki ci sóoratul moomi noonu kon durin foo ko foo ka eh, jàngee ci alquran rek mooy musiba mu matale moo xam ne bu ñëwee ci ñëpp lay dal ta du gën ci ñoom nee na suñu borom musal na ma ca nag du ma jublu mukk lenn luy xeetu lor wala addunaas addunaas nag moom tër tër lay nekk muy lu ñuy wax tilim tilim yuy nekk ci xol loolu du ko jublu mukk de tilim tilim yuy nekk ci xol loolu du ko jublu mukk de lu mel ni kañaan ndistal naw jëf lépp lu baax loo xam ne nit ki koy def di ko naw loolu suñu borom musal na ma ca de waaye iblis may njëttaakoon bi di yàqaakoon bi kooku du jublu mukk sama wàllu suñu borom musal na ma ca de lam yan fu nii du ma jublu mukk durun lenn luy xeeti lor wala adanaas wala ay tërtër de wala si yan hoo te di jublu mukk jaati di ñëw sama wàllu alxanaas iblis may njataakoon bi de kitaabu sil jalaali téereb yàlla muy borom màgg ki wal ikraami ak terale gi xaalata nii dafa jaxasantoo ak man waxaade te woo matal na lii jëmee ci man maraami sama càkkuteef de téereb yàlla mi nga xam ne mooy sil ki waaye mooy ikram mooy borom terale ki ko am teraanga moo la ko jox waaye mooy jalaal mooy kii tàggat doomu aadama def la muy def ca moom kooku nee ne téeréem bi moo jaxasoog man bu door jaxasoog baatin nga ne sama yàpp la jaxasantoog ba mantu tàggoog man jaxasoog itam am na ndax heure bu ne mi ngi ànd ak moom téye ko di ko tadabur di ma ay maaniham ci waxtu ne waaye nee na alquran moo may jox samay càkkutef lépp lépp lu ngeen dégg ñu ne man sëñ Tuba am naa ko rek ci alquran ci laa ko jëlee de ngeen dafa jax santeeg man mada tàllal na lee ñel ma alxillu yàlla moy xarit ba xinnan koom an xayri walis keneen ku bokkut ak moom de wakaana ta nekkal na lii ñel ma alhibu soppe ba bi an la xayri gën kaa yëkkatiku gën kaa kawe li nga xam ne moo di ay yiwam de nee na yàlla mi nga xamee ne moo doon sama xarit nee na koom mi ma am yëpp bàyyi ko ci keneen ku bokkut ak moom waaye ki nga xamee ne mooy soppe bi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem yiwam yi ca féetee kaw nekkal na ma ca de lu mu ci bëgg rek man suñ tuwaa mu defal ma bu dee yàlla koom mi ma yor bay ko ci bay ko ci kenn ku moom moo ma ko jox moo ma ko tàllal bu dee wu nekk ci man bay ko ci kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo di sama soppe kon soppe la ci yonent bi soppe la ci yàlla xarit la ci yonent bi xarit la ci yàlla waaye bu dee maqaama alhamdu yàlla rek lañ koy jox du tey yi dana ko doon ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam de mu ne ma da tàllal na lee ñal ma alxilu xarit ba xëy naan koom moo xamee ne xëy naan ak koom aan xëy di walis ku dul moom de wakaana ta nekk na lii ñal ma alxibu soppe ba bi ala xayri ci gën kaa yëkkatiku ci gën ka kawe ay yiwam de tursi sama yi anil xadi walis mer wa dalaali ak réer ridal ali mooy ngërëmal yàlla muy aji xam ji albasitil xalaali kay aji tàllal xéewal yu dagan ya de nee na su fekkee am naa benn pakk bu dox sama digganteeg mer ba du ma mer du ma réer nee na yàlla muy aji xam ji ma amee de nee na ngërëmal yàlla mi nga xam ne mooy ki xam lépp te ngërëmam yàlla moom laa am mom yàlla mi nga xamee ne ko am ay yo yu dagan moo la ko jox nee na ngërëmam nag moo tax ba ma ko amee rek dootuma mereti dootuma réerati kon ngërëmal yàlla ci la lépp nekk de ndax nee na moo dox sama digganteeg mer ak réer ngërëmal yàlla gi ma am rek de faraxtu bég loo naa sayidal wala sangum bindi fi sallallahu alayhi sallam bi xati ci sama mbind de wa innahu naka moom soo mati borom tallal la lee ñal ma ari daal li nga xam ne moo di ngërëmam de fii waxoon na la ne li tax mantu mer mooy ngërëmal yàlla fii mu ne la bég naa sangum bindi fi ci xasid ci moom moo tax ci la ma tàllalee ngërëmam ba tey kon am na ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi kon kooku dootul réerati waaye dootul bañ ko yàlla sàkk waaye itam dootul réerati dootul merate kenn mënu ko def lu tax muy mer de sëñ Tuubaa neen lam yàq fa nëbbuwul kaw nu xaasil xasida nekk gi xasida xaqiqatan ca dëgg-dëgg réalité bi tuuti di jox alfata waa ju mel ni man di ko firi nii maxsooda la muy jublu rek mooy la muy yéene di ko bëgg de sëñ Tuubaa neen xasida gi amul sikk sàkk ne képp koo xam ne taxoo nga ak moom di ko jàng la nga bëgg ci àdduna ci alal la nga bëgg lépp ci àdduna loo bëgg rek sëñ Tuubaa nee ne maanaam amul sikk sàkk kooku moom nëbbuut ne del jàng xasida gi nëbbuut lam yax fa la wax kaw nu xaasil xasida xaqiqatan tuxtil fata maxsuuda lam yax fa nëbbuwul mukk mukk kaw nu xaasil xasida nekk gi xasida xaqiqatan ca dëgg-dëgg tonte di jox alfata cam saal maxsuuda jubluwaayam moom génniwul ci dara lépp lu bëgg rek bu taxoo xasida gi dana ko ko jox de xawaat làq na moom xasida gi manaafi'a siniina njëriñi at yi wa sóor ak weer yi mbir moom muy aji sell ngir yàlla rek a tax li wàcc maaliki duhóor ngir jëm yàlla mi nga xam mooy aji moom mboolem jamono yi de sëñ Tuubaa nee na njëriñu at yi ak weer yëpp maanaam dëxëñ naa ko ci xasida gi kon ku bëgg njëriñu weer yi ak njëriñu at yi njëriñu bis yëpp mi ngi ci biir xasida gi man ko ko am de waaye nag lépp ngir jëm yàlla mi moom jamono rek de waaye leneen nekkul ci lu dul jëm yàlla de xasida gi lépp suñ borom la subhaanahu wa taala waaye ku wut aduna ku ci wut yàlla lépp da nga ko am ci biir xasida gi de waa jaani jublu ma aljamilu yàlla muy aji taaru ji fii dunyaaya ci sama biir aduna de bii basirin ànd ko mbég moo xam ne mox li dan aji saxalal la ma sun yaayaa xéewal yi de nee na yàlla muy aji taaru ji defar na sama aduna ndax fu ma toll damay saxoo xéewalu aduna yi ak mbégte ba keroog may tàbbi aljana de naa jeytu diyente naak rabal alamin yàlla muy borom bi ne fii moomina mbir moom may aji gëm ko wa musliman tey aji waye ay santaane wa muxsinaa tey aji refatal def ta moom sax ca dàkk de ñu ne diggante nag yàlla muy borom bindee fii waaye nag ànd koog iman ci biir diggante geeg communiqué geeg yëpp dama ànd koog iman ak islam ak ihsan waaye fu ma toll dama ci sax de léegi nag dafa waxoon ne suñu borom dëggal na ak yaakaaram te mooy bi muy tàmbali xasida gi dafa waxoon ne jullil ci yonent bi ak waa këram ak saaba mi kama xaqaqa rajaa'i bi qawli comme ni nga dëggale sama yaakaar ci sababu wax ji nga wax la'allakum tuflihuuna te man ci ñooñu ci laa bokk mu ne dëggal gi nag fii kulli yamin ci bépp bis la ko yàlla def wa fii kulli usbu'in ayu bis de wa fii kulli ak bépp weer wa fii kulli amin ak bépp at de kon xasida gi boo koy jàng bis yeeg ayu bis yeeg weer yeeg at yëpp suñu borom dana dëggal sa yaakaar na yow ku war a tax nga de lépp loo bëgg ci aduna sa yaakaar du tas mukk de mu ne wa jaala yàlla na nga def xaasil xasida gi xasida saari fata mbir moom muy aji walbati darara naari dunyaa safaraw aduna ilaa xayri saati mu daw jëm ci furut sama jëmu wa ilaa xayri ma ak mu jëm ci lu dul laala nga xamee ni ixtaaroo tànnal na ko allahu yàlla lii ñal ma waa sama nii maa ngi koy ñaan mu musal ma min ruxyati naari laaxirati ci may gis safara alaxira abadan faw waaye na ko def rek bi fadli ci ngëneelam wa joodi akuk tabam wa karimi akuk tirangam walaaw yàlla wakilun aji seedal ala ma ci lii nga ne wax nañ ko subhaana rabbika tudd na ma moom muy borom tedd xamaa ci fon walis lépp loo xam ne danañ ko ko alal mursalina yàlla nekk ca ko yàlla mosu yónni walhamdu sax dàkk la ñeel yàlla rabbil alamin moom muy borom bi defi de da ko wax rek ci anamu mu ne yàlla yàlla na nga def gi xasida su ko defee xasida gi man ci sama jëf bopp ak koy jàng yëpp na nga ko ci xasida gi lépp luy safaru aduna mu mucc mu mucc ci ba du dal ci jëmmam waaye la nga ko tànnal ci mu di la ko jaamoo yëpp musal ko ci safaru aduna ba du ci man dara waaye na nga ko musal ba tey muy gis safara ëllëg yomal xiyam waaye loolu yëpp na nga ko def rek ci sa ngëneel ak tab gi nga tab te mën a maye ak bëri tiraanga gi nga bëri tiraanga te defeewu ko dara lu say jaam nga koy jox daa dina ma wax sa yàlla seere na ko ne bi ma taalifee xasida gi musal na ma ci safara adduna ci sama jëmm waaye li ma tànnal itam musal na ci euh, musal na ma ci ba safara adduna mën koo yàq waaye musal na ma ëllëg yemal xëyaam safara wu tàng wa ba tey suñu borom musal na ma ca ci taalif gi ma taalif xasida gi waaye lépp da koo def rek ci mbaaxam def ko ci xadduloom de ci mandom waaye ci ngëneelam ak tabam rek ak teraangaam yi nga xamee ne moo ko sàkk te jaamam rek a tax nee na ci teraangaam la ko rek def ko ak tabeem ak ngëneelam de ndax yàlla ba xoolee ci ngëneelam ak tabam ak tiraangam defal la dara rek mooy ci mbaaxam la moo tax mu ne yàlla de ku seede lii ma wax de kon kuy jàng xasida gi dana mucc safara ut nag ëllëg yemal xiyam dana texe ci àddina texe ëllëg yemal xiyam daa dina tudd na ma sell ak buur bi moom mi nga xam ne mooy borom tedd nga lépp loo xam ne ñu ngi ko koy melal ci ay doom ak i jaaju jàmm nekk ca mboolem ko yàlla mosa yónni melu sax dàkk perfet aji sax la ñeel yàlla moom muy borom bindee fi de kon xasida gaa gu am solo la sëñ Tuubaa nee na làq na njëriñug at yi njëriñug weer yi njëriñug bis yi dégg nga rek képp koo xam ne yaa ngi koy jàng di ko tadabbur di ko setantal na xam ne njëriñu at yeeg njëriñu weer yeeg yëpp mi ngi ñëw ci yow de boo ko yëgee ak boo ko yëgut yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te defal nu tawfiq ak taysir salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu